projet bi ak maanaam bés bi ñu ko jox dafa tuuti tuuti goo xamante ne ñun ñi nga xamante ne vraiment ñun xale yi leen bokk am nañ si maanaam njàqar ak tiitaange ndax fukki milliards ñu wàññi ko si bés wax dëgg yàlla jox la benn ambition boo xamante ne maanaam boo xamante ni fa nga war a dem loolu dafa xaw a néew kon maa ngi ñaan président la république mu xam ne ministre la jeunesse lu am solo la mu jox ko ay ay jumtukaay ak ay matuwaay yoo xamante ne nii dana mën a maanaam àggale jeunesse bi ak réew mi a àggale ndax projet yi nga xam mooy projet Prodec bi na ko si moom emploi jël nañ ko si moom kon nag lu mel noonu daanaka bu nga bëgg ne da nga bëgg a defar vision bu toll noonu ba pare xale yi représente 70 pour cent ba pare gisuñu seen bopp presque ndax 2 pour cent la ñu représente si bi kooku tamit il faut que président de la république génnewaat maanaam ay moyens jàppalewaat xale yi ndax xale yi mooy avenir Sénégal. xam nga ñoom ak ñun xam na li tax ñu wàññi ko ndax ministre expliqué na ko ma ñun lan war mooy bu loolu amee ban expliqué ko ba nga xam li tax ñu wàññi ko xam koo xaaj produit génn na emploi génn na yooyu yëpp bu génnee yoon def nañu wàññi bise bi mais dama bëgg maanaam yokkaat gi yokk gi mooy damay ñaan en tant que parlementaire teewul fi maanaam département Mbacké may wax ne yokk gi dafay baax pour mu gën dool ay résultats mais tamit ñoom ñu ko wàññi xam nañ comme amutul ay ministère emploi euh, Prodec nekkutul si moom mais war nañ ko mën a wàññi waaye nag pour ñaan ak yokk gi loolu bëgg wut ak dara ak li nga xam moom lañ def tey. Ah, askanu ñoo ma tànn man bu may dox du ma dox si baatu kenn département Mbacké laay teewal. lépp loo xamante ne bu ma ko defee dana jaar yoonu Mbàkke suqali Touba dinaa ko def te gis naa ne loolu mooy doxal réew mi wasalaam merci